man Ndiaye mii waaw. man man am naa foo bokk. yow am na foo bokk. man fan laa bokk. waa léegi bokk li ngeen bokk. te ba ma man fi ma bokk. ci góor yi laa bokk dëgg dëgg dëgg. waa léegi lan ànd defar ngaabu daal ci la bokk. waaw fu ma boole fu ne perte yow mi bokk ci ñoom topp leen di leen xeexal guddeeg bëccëg doo noppalatu ak lu ñuy wax nga enquête leen. yow chargé de mission sax doonoo ko. waaw wax nga dëgg de démissionné. jot na de ah waay la jaajëfal ma ne de ba na. non dinaa bàyyi nag. ñuy xoolee ba ñuy dem di. jëli ñeneen ñu nekk ci yéen parti bi nga nekk ci parti bi yow waaw du yoon de quand même yoon de jaar fi pour de bu baax sax doonoo ko pire vraiment wax dëgg yàlla pire kay moom tekki moom fa dara idi am fu la te bi idi di ñëw dafa indaale ah. idi bi muy ñëw dafa indaale waaw idi nag maa ngi koy félicité waaw ah, idi moom dafa ñëw indaale idi idi maa ngi koy félicité ah maa ngi idi kon wi bokk leen fi ngeen taxawee askan wan ñi nekk ci réseaux sociaux yi non réseau ñooy askan travail voilà mën mën naa lim mën naa cee lim ñu bari quoi. ay ay Omar yu mu ay Omar yu mag yooyu Macky Sall mi ko def rek moo koy maîtriser. waaw c'est ça. Euh, li mu wax ci Idrissa Seck bu fekkee xam-xamam bi mu am. parce mhm. yooyu. Mhm. xam-xam kàngam la ci réew mi bu dee mhm. xam-xamam boobu la bëgg a teg. ngir liggéeyal ko Sénégal. Ah, ah ñoo ngi toog di seetaan doomi réew mi la. am na xam-xam ami jaar-jaar am lu mën a jëriñ réew ah, mi. sur ce plan là moom je d'accord. li gaa ñu war a bàyyi kay mooy di teel a wax Hmm, dañoo war di xaar di may chance. waaw ah, cest à ci jamonoy vaar la ñu nekk. lu fi hmm. waaye wax démb rek dana la dab tey. Hmm. ah teel a wax. Ah, dañuy bàyyi wax ji daal. teel a wax dañuy bàyyi wax ji daal. wax bal la. non dañuy bàyyi wax ji. wax bal la c'est-à-dire wax day mooy yàqal lu bëree bëri Idrissa Seck mu dem liggéey ak Macky Sall lu wax mais mais la mu waxoon jiital ci. waaw xam nga a taxawee ne nit vision rombul jam ñaajo ba pare nga ànd ak ñoom ça veut dire que sa vision. mu dem yegg Cees de ba Ndar. boo taxawee ne nit kii vision rombul jam ñaajo ba pare nga topp ci ginnaaw kooku kon yow naroo lu wér waaw da koo a jàppale. waaw mooy wax ji ah, mu kon jeex na moom mu ñëw sofu ca pour vision bu gën a yokk. moom Sénégal qui gagne. c'est vraiment bu dee Sénégal amul homme d'état bu gën a taxaw Idrissa Seck ah. ci am yi gën a taxaw ci réew mi la bokk Idrissa Seck Khalifa euh, Khalifa Sall ah. président Macky non mën naa ci lim ñu bare bari mii ah. mi Touré mii femme ah. detaa la ban yaa wax li tey maa ko wax mais mosuma ko sekk Idrissa xanaa xanaa nga gis nen ni lii du nen waaye Sénégalais yëpp soo day wax dëgg xam ni c'est un homme d'état ah mais man daal amul benn politicien bu ko a taxaw ci réew mi ñu ci bëri seen en tout cas loolu waaye nañ doxal nañ doxal never say never man daal euh, bëgguma ay ah. yëfi personnel man daal ku nekk ci gouvernement ku nekk opposition yëpp yam na na réew mi ñor rek réew mi yitteel leen xale yi sonn nañ nañu bàyyi xale yi xel ñu bàyyi gaal yi bàyyi euh, toog yi ñu toog ci kër yi man daal jimbali leen daal nañ dimbali xale yi man daal idi idi idi ak Macky li tax ñu neex ma mm-hmm. mooy mm-hmm. liggéey lu bari wax tuuti wax ju bari doxalulum réew ngeen wax lim fii teg teg na ko fi mun ñoo wax a wax a wax wax bañ soppi lii ñu fi teg nañ dem liggéey te ba wax ji c'est ça loolu mooy dëgg di liggéey lu baree bari wax tuuti xalaas bii. ayca Yacine xoolal sa son bi man ñi ne ci réseaux sociaux itteel nañ ma de xoolal sa son bi ayca ayca. dégg nga mhm. xalaas bi Ndiaye. Hmm. maa ngi koy monté nga may ree le passeur des passeurs la capitaine de capitaines ci booy yi jël gaal yi. am na benn paa bu bu ñu génnee ci internet bi ci weekend bi. muy assumé ni moom mooy capitaine bi mooy teg gaal bi mooy yóbbu gars Europe. gaal gi mbëkkante woon ak marine bi waa ji moomoon gaal bi encaissé xaalis booy dugal ko ci ci dugal leen ci gaal doon dem Espagne ñu marine bi kar leen. arrêté leen ñu bañ mu arrêté waat leen ñu bañ ñu arrêté waat leen bañ marine bi kar leen ñu bëkkante am ñu ca dee. <laughs> ga tegoon gaal gi ci boppam. marine bi kar leen ñu bañ marine bi kar dama ne man dama ni man li may wax ni man li may wax nii ay xibaar yu wér. man ji dëgg na ma ay xibaar yu wér te wóor laay joxe. man ko wax wala dafa am ko ko wax. dama xibaar yu man tey jii xalaas laa mhm. xibaar yu wér te wóor yu kenn dul dindi. lay indi booy biñ déparé. Hmm. marinu Sénégal bi car xam nga tey ju ko marine su départ demul pour rey nit ñi. Mm-hmm. dafa dem pour arrêter leen sauver leen indi leen. Mm-hmm. et biñ leen arrêté dañoo lànk. Mm-hmm. ñu arrêté waat soo def leen sommation ñu lànk ñu kar leen taxaw seen kanam ñu mbëkkante gaal ki këppu lii nag borom gaal ga ca boppam moom demul woon dafa yable woon. mais moom moom gaal moom moom gaal gi organisé voyage bi. assumer affaire yi moo encaissé mais gaal gi nga xam ne moom moo dajeek marine bi ba am ñu ci faatu gaal gi sa gaal la waaw yow yaa ko teg sama gaal la sama gaal la maa laaj booy yi seen xaalis ñu jox ma ñuy deux cent man leen man mun naa leen mais lu tax nga laaj leen xaalis yaa laaj booy yi seen xaalis parce que ñoom intéressé wu na la ñoom pour dem Europe puis koo fi wax mun la Europe lay fee lay fee booy yi tout temps koo mun la Europe xëy na ku ko ci amul quoi mm-hmm. mais ku ko ci am loo ko laaj jar kenn ku ne ñaata la fayoon. dañuy non ay deux cent mille teg loolu moom oh. xëy na sax bu ma lay wax nii danga naan gaañ bi day suuf lii bu ma doon may jekk na yàgg na. deux ku ne la joxe ñaata la ñoom. non ça veut bëri bëri nañu quoi nit ñi moom bëri nañu xam nga nit ñi da nga joxe am na sax ñu joxe cent mille. mais ñu ñooñu loolu encaissé. man nii la leen jox man. yow lañ jox yow lañ fay. man la leen jox. yow la ma wala man ma di. amul benn bi nga xam. Hmm? Ah, nekk nga feneen intermédiaire. Hmm. di jël nii xaalis nii da nga naan ma diw man la woo ko mu ñëw mu ñëwee ma nekk la ma ne la man maay ki la mais lu tax bi gaal gi dem yow demoo. non gaal gi demul. dégg nga wax mais na. non gaal gi départ problème moo am. di problème amee. waaw nga paa bi ni ma fii problème am na ma ne ko kon génneel gaal gi. waaw non ci tefes gi problème mu parce que après dafa bëri bu ñuy quoi. bi bi nga encaissé booy ba ñu yeb gaal gi ba pare. ba nga encaissé seen xaalis bi da nga jël ku naan paap jox ko ko. non non non. kan la. xam nga nit toujours buy wax day wax te man li ma lay wax. Mhm. fii ba yow man xeer. Mhm. du ma ci changer dara. man duma benn gaañ bi nga xam ne nii xam nga damay damay lekk nii ay riba quoi wala di def lu yoon. Mhm. comprendre nga bu dee affaire gaal yi. tey ku ci encaissé exemple cinq cent mille cinq cent mille. ba yëpp ci soixante personnes. Mhm. non boo goree mën nga ko ba. mais man nee la du xaalis moo ma tax a gaal gi lan moo lan moo indi problème mu gaal gi. voilà man maa leen doon yóbbu suñu bi. yooyu mhm. di leen yeb ci ay taxi. sa client yaa leen doon yeb ci taxi di leen yóbbu. maa leen di yeb ci taxi. dégg xam nga ñoom ñëpp mënu ma leen boole yóbbu quoi. waaw mais bu ma trois taxi quatre. ci diggante boobu ci diggante boobu tefes bi foofu. parce que dafa am ñëw foofu ci tefes bi. Mhm. ni ñoom dañu bugg dem ci gaal gi. ci gaal gi te ñoom. bokkuñu ci ñoom te bokkuñu ci bokkuñu ci bokkuñoo fay. non ñooñu bokkuñu ci parce que ñooñu fayuñu quoi. mu wax ma ko quoi ma ne que comme affaire bi demee noonu léegi da ngay tekki gaal gi nga génn ma ne que ci île de serpent mënuma waaw ma ne que am na ñaari île la quoi ma ne que da ngay tafu foofu. ngi wax mhm. ma ne que nga pris dans daal parce que marine bi xam nga souvent day surveiller. boobu bi nga koy wax loolu yaa ngi fan boobu bi ma koy wax loolu maa ngi ànd fi mu doon yebee client di leen kon dafa dafa da ngeen da ngeen ànd mu départ ba Île de Serpent non non kon da nga